di ñaanal ñëpp jàmm bëggoon rek indi sama contribution ci waxtaan bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy wax ci wàllu xadis yi euh, fii ma teg ni sama loxo benn xadis la boo xam ni mbokk mi defe naa sëriñ baara la tudd moom moo indi xadis bi pour wane nii que yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa waxoon ci xilaafa ñeenti xila xalifa yi ñëw après moom euh, balaa may dugg ci analyse hadis bi moo bëggoon wax ci tënk rek ilmul hadis lan moo ko sabab ak lu tax mu am ak naka lañu jàngatee hadis ilmul hadis d'abord hadis mooy waxu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay jëfam ay waxam ay noppeem ay tegtalam ay fekkeem loolu yépp la ñu tuddee sunna mais boo ñëwee ci chia ak ah sunna yi dafay am différence première différence mooy que ci chia yi xadiisu yonent bi ay waxam ak ay jëfam xadis la aimma yi ahlul bayt yi nga xam ni ci chia yi ay maxsuum lañu ñoom tamit seeni wax ak seeni jëf ci xadis la bokk boo demee ci ahlu sunna yi waxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay jëfam xadis la waxu saxaaba yi nekkoon ak yonente bi ci ñoom tamit xadis la waxu taabiina yi xadis la taabiina mooy ñi nga xam ne ñoo fekkee jamonoy saxaaba yi mais fekkee wu ñu jamonoy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu mooy définition wu hadis li am moo di ne bi yonent bi sallallahu alayhi wa génne àdduna xulafaa yu njëkk yi dañoo tere woon bind xadis dañoo tere woon ñu koy bind dem nañu ba dañ daan confisquer ku bind hadis dañ koy nangu ci yow lakk ko kon euh, loolu moo waral ni xadis yu bare yu nga xam ni nit ñi yoroon nañ ko jëlee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa réer boole si tamit dafa jaxasoo ak loo xam ni yonent bi waxu ko te loolu li ko waral mooy ñàkk bind hadis ak ñàkk dégg waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak tamit am ay nit yoo nga xam ni dañuy dugg ci biir lislaam infiltré ko ba pare di soppi hadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak di indi ay wax yoo xam ni dafa safaanoog li yonent bi waxoon loolu bi mu demee ba law ba yaatu ci la ulama yi gis ni nag jot na pour ñu war a développer benn xam-xam boo xam ni dafay permettre ñu mën a segg hadis loolu nag moo indi ilmul hadis ilmul hadis mooy naka lañuy fexe ba mën a ràññee hadis bu wér ak bi nga xam ni wérul wéral hadis nag dañ koy sukkandiku ci ay anam yu bare ba ca njëkk mooy isnaad bi maanaam est-ce que hadis bi ñi ko soloo amul interruption maanaam nit ñi ko soloo toppante nañ ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi loolu benn la ñaareel bi dañuy sukkandiku ci ñooñu nga xam ne ñooy jottale hadis bi ñoom ñooy ñan ba xam ay nit yu jub lañu wala ñu duwul lañu ñu ñu mën a wóolu la wala ñu ñu mënta wóolu ñu ñu xam la wala ñu ñu xamul ñetteel bi dañuy xool hadis bi maanaa hadis bi ci boppam fii nag ay yi ñoom dañ jàpp ni ñoom dañu hadis bi dafa war a dëppoo ak alxuraan bu safaanoo ak alxuraan dañ koy rejeté ci saa si bu dee ahlu sunna yi ñoom dañu jàpp ni hadis mën na ñëw man suuxal aaya alquran maanaam hadis mën na ñëw boo xam ni dafay abrogé maanaam dafay contredire alquran ba pare hadis bi am dëgg ci aaya alquran bi loolu tamit ay différence la ci chia yi ak sunnit yi kon xam-xamu hadis dafay ëmb d'abord histoire hadis maanaam ñu mën a xam lan mooy hadis maanaam taarixul hadis mooy xam histoire hadis lan mooy hadis naka lañ dajalee hadis bi muy tadwin al hadis xam ni hadis yi dañ ko defar fabriqué wala lu wér lu ñu fabriqué wul la ak xam tamit yan mooy téere yi nga xam ne ci la ñuy sukkandiku pour jële fa hadis beneen yi mooy li ñuy tuddee dirayatul hadis maanaam dañ koy dajale ci wàllu lim ci wàllu ñi nga xam ni ñoo koy jottali ak seeni caractère dañ koy dajale tamit ci wàllu ban naka la hadis bi di jokkaloo ak kenn ci maasumiina yi nga xam ni ñooy maasum yi maasumiina yi ñi nga xam ni dañoo mucc ayib ak tamit ki nga xam ne mooy dottali hadis bi lan mooy fas ak tamit ci baatu hadis bi ci boppam maanaam naka lañu koy baat yi nga xam ni moom la ñu jëfandikoo ci biir hadis bi beneen bi moo lañu tuddee rijaalul hadis rijaal mooy ñi nga xam ni ñooy jottali hadis loolu mu ngi jóge ci ni ñuy seggee hadis ñu xam kan moo jottale hadis bi est-ce que ban nit la woon ak nan la dundee plus ñu mën a xam ci moom plus ñuy gën a mën a xam ba xam mën nañ koo wóolu am déet ci wàllu hadis léeg tamit mu am ñoo xam ni kenn xamu leen sax xool nañu seen tur xool seen dundin seet nañu ci gëstu nañ ci téere yi waaye gisuñu ci benn boo xam ni dafay leeral nit ñi ñu mën a xam ki nga xam ni moo solo hadis bi mooy kan kenn du ko xam loolu yëpp dafay nekk ci yi nga xam ni dañ koy jëfandikoo ci xam-xamu hadis kon bu ko defee xam-xam boobu dafa yaatu moo tax wéral hadis ak ñàkk wéral hadis sukkandikuwul ci bëgg-bëggu nit ki wala ci lu ko neex wala lu nga xam ni nangu na ko ci pas-pasam mais dafa sa xëpp dafa dafa wéeru ci xam-xam moo xam ni bu yaatu la xam-xam bu buy laaj gëstu yu bare la beneen affaire bi mooy que chia yi ak sunni yi tamit wute nañ ci que chia ahlu sunna yi ñoom dañuy sukkandiku ci boroom xam-xamu salaf yi maanaam ñu njëkk ñi comme Buxaari ak Muslim ak Nisaayi Abu Daawud Ahmad ibn Hanbal ñoom ci seen gëstu am na hadis yoo xam ne dañ ko dajale woon ne hadis yi dafa wér ñu tuddee ko saxiya bu ko defee nit ci yi ci topp tamit dañuy sukkandiku si ñooñu rek comme que diw waxoon na ni wér na kon wér na kon ñu daal di arrêté recherche bi foofu daal koy yemale ci jamono yooyu kon ba léegi nii dañuy jël buxaari wala muslim wala beneen téere dañ ciy sukkandiku ni wér na day mel na ci ñoom comme alxuraan fekk gëstu bi ñu war a def pour vérifier hadis bi Euh, nekk lu lu loo xam ne lu obligatoire la bien que amoon na benn boroom xam-xam boo xam ni génn àdduna léegi sax ñu koy wax albani jëloon na tamit liggéey bu mel noonu di jéem a seggaat hadis waaye critères yi nga xam ne ci la doon sukkandiku pour segg hadis yooyu tamit pour wéral hadis yi génnul trop ci pas-pas boobu nga xam ne moom laa wax moom la ahlu sunna yi di doxalee wàllay hadis donc loolu tamit war nañ ko xam loolu daal moo doon euh, si tënk lu ma bëggoon a wax ah waaw dama jum fii parce que dama doon expliquer ni chi euh, chi sunnit yi noonu la ñuy defee hadis mais boo demee chia yi ñoom dañu jàpp léegi am xam-xamu ijtihaad ci wàllu hadis mësul tëju maanaam dañu koy continuer di def depuis jamono yonent bi ba léegi nii toujours boroom xam-xam yi ñuy tuddee mujtahid yi nga xam ne ñoo nekk ci ñooy ulama yi nga xam ni am nañu. lijaasa boo xam ni ñoom am nañu sañ-sañu euh, firi atte yàlla ci wàllu sharia firi alquran firi hadis walla euh, seetantal hadis segg téere hadis ba wax ni bii wér na wala bii wérul walla bii mën nañ see sukkandiku wala bii mënuñu si sukkandiku wala bii duñu ko dàq waaye duñ ci sukkandiku it dañ koy bàyyi fi mu nekk rek loolu yëpp dafa am ci ay wàllu addis am na addis yu nga xam ni mënuñu déterminer ni wér na kon mënuñu déterminer tamit ni wérul dañ koy bàyyi noonu rek kenn du ko jëfandikoo am na addis yoo xam ni dañ koy jëfandikoo ci wàllu sharia ahkaamu sharia maanaam ci attey sharia waaye duñ ko jëfandikoo ci wàllu aqida maanaam ci wàllu pas-pas ak ngëm-ngëm ndax amuñu doole bi tax ñu def ko pas-pas loolu yépp dafa am ci ay catégorie hadis kon boo jëlee euh, aaya boobu ma wax ci yonent yàlla ibrahima am na yeneen aaya alxuraan tamit yoo xam ni dafay ñëw gën a leeral yooyu gën a leeral mbir moomu ke ci zurriyati ibrahima boobu la euh, summa awrasna alkitaaba alladina stafayna min ibadina inna allaha stafa adama wa nuuhan wa adama wa nuuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalamin zuriyatan baaduha min baad dañoo jurelte seen biir ay zuriyatan baaduha min baad lañu maanaam dañuy jurante ci seen biir kon ci benn famille boobu lay affaire bi di nekk du génn ci famille boobu loolu moo waral ñu nekk ñoom ñépp ci Quraysh loolu mooy indi que du génn ci Quraysh secret bi foofu la nekk kon lii yëpp dafa dëppoo ak alquran dafa dëppoo ak xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dëppoo tamit ak xel bi yàlla def ci doomu aadama kon dafa jub xocc wasalaam